du jox kooku sa manat waay Macky na xam loolu dégg ngeen li mu wax le redressement judiciaire redressement judiciaire mooy lan xam ngeen ko mooy daq nit ñi du ngeen duggee si internet ngeen tàppe dafa gudd mooy daq nit ñi tëj entreprise bi est-ce que ko nangu waaye xam nga ni kii moo wuteeg secrétaire généraux yi dem topp tubaab bi ba mu ni day jël xale yi waaw kooku dinañ ko seetaan mu mu yàq suñu entreprise bi mais duñ ko seetaan sëñ bi donc ce qui est important loolu moom loolu la proposé jeex na moom dis nañ ko amatul benn droit waxaat sunu sunu chemin d'affaires. sunu sor sunu sor pare na si Macky Sall nag waa xanaa bëgg na ñaari mandat li muy dox yépp Thiès gii ku ko laal. muy chemin de fer daanu nga dinaa leen nettali benn euh, anecdote benn histoire bu ndaw am na koo xam ne directeur de cabinet président Ablaye Wade la woon il nous a reçu ñoom Cheikh Diène et moi bi ma ñëwee mu jël gaaru Dakar dama ni ko waxal président mu bàyyi gaar bi du ko bàyyiwul day daanu mu ne waxu xale rek ngay wax kenn bëgguloon nekk président Ablaye Wade ba muy daanu chemin de fer a ko daaneel Macky Sall du bàyyiwul chemin de fer par à travers son secrétaire général day daanu maa ko wax je vous 2017 li ci des CDD yi CDD Cheikh Diène wax na ko conseil d'administration ça fait trois mois biñ ko defee démb ñu ne conseil d'administration moo joxe moo joxe cutus wa euh, par le travers par travers euh, le le ministre mais du dëgg assemblée générale il faut ngeen xam institution yi nu muy doxee dafa am lu ñuy wax conseil d'administration du liggéeyee. assemblée générale mooy entériner li mu liggéey lu ñu inscrire au conseil d'administration kenn du ko wax en assemblée générale sunu braves secrétaires généraux de centrale yi je veux citer Modou Guiro ak Mademba Sock mais ñoom ñoo liggéey si dossier bi mais nag yéen lay wax muy waa DIF ak surveillance ñu njëkk ñi le deux dinañ liggéey ñeneen ñi fin août dinañ liggéey du ci yàllaande na ngeen toog yaru na ngeen toog discipliné déglu nit ñi du neex yàlla dinañ xeex ba kenn du bàyyi kenn si ginnaaw xanaa doy na leen ñun nag du ñu nekk si rajo bi di wax lii wala laa mais entreprise bi des na mais duñ leen jëlee ba pare ñoom li ñuy mbëbët secrétaire d'État mu am ko ñu jël leen tey décembre li mu wax ñu dàq leen est-ce que amati na njariñ amul njëriñ donc présentement. nañ leen joxante loxo secrétaire d'état bi moom na noppi si mbir mi wala ñu dindi ko fi wala dinañ alku ñun ñi parce que day tëj boîte bi daf koy tëj te je crois que le président xam na li may wax lan la leneen li boîte bi mënul continuer nii nag xanaa train train train train mënu ko continuer ki fi ne nee na day joxe xaalis xëcc na xaalis teg si taabal ji nañu xool li mu xëcc. nañu xool li mu teg si taabal ji ndax war na mën a téye boîte bi pendant trois ans du ko mën a nekk parce que ñoom amaguñu solution amuñu beneen solution su du su dul redressement judiciaire wax naa leen redressement judiciaire mooy tej baaj boîte bi dàq nit ñi mais solution boobu est-ce que d'accord ngeen ci kenn d'accord aussi donc loolu moo leer na ko nit ñi xam loolu laa bëggoon mu leer ci boppu nit ñi